leneen te jamono jooju réew maa ngi tumuraanke réew maa ngi torop moo tax fi ne nii jaaxle na ndax tappale yorum réew réew bi dëgg lañ ko yor mun nga tappale jënd ñu lay waxal fu ne jënd ay patron de presse ku leneen nekk nga ñu lay xalamal suba ngoon waaye sénégalais yi li ñuy dund loolu loolu du ko rek la de tey ci lan lay langaam ci lan lay langaam suñu xëy ñu ne FMI nee na Macky Sall exemple FMI yàgg naa ko wax du suñu xarit du suñu mbokk réew yi jóg génn ci fuuta jamono ji yëpp Brésil bi FMI waxee dañ ne dañ ne FMI d'accord ñëw lu laa teg fële FMI def ay méthode am Brésil jóg Mahathir fii ci Indonésie bi mu ñëwee FMI ne ko lii mooy suñu recette mu ne leen dégg naa leen même recette bi teg fële jaare na leen Corée du Sud noonu la def dans les années soixante cinq soixante dix FMI ku mu tàccu rek mooy nekkoon ci yoon bu baax ay FMI yi pour féliciter Macky Sall gars yi jël ko bind. ma ne Sénégalais li ñuy dund FMI xam na ko Sénégalais ñu ngi lekk ba ñu ngi naan ba suur njàng mi dox na faj mi dox na leneen leneen ñu naan ba FMI wax na wala ñaari fan ñett yu ñu ne waaw Sénégalais bii France jox na ko raaya loolu mérite individuel la ay raaya France ak raaya keneen ñun fii la ñu dal suñu réew mi. wala su la neexee ñu jógati ne léegi nee nañu ceebu jën euh, adduna bi xam ne ni ceebu jën nag Sénégal lañ ko xam donte Gambie dina ko togg euh, Mali dina ko togg Côte d'Ivoire sax dina ko togg Mauritanie dina ko togg Burkina léegi mu langaamu ci ceebu jën bi yow bu école bi di tàkk kenn du la gis nga def nga def communiqué ci Skype kii Twitter dem buy tàkk doo ko étudiant yaa ngi nii mi ngi mi ngi mi bu doon réew bu normal président wax na yu ngeen mës a dégg Macky wax santé ñi ngi grève Macky du ci wax transporteurs yi grève nañu Macky du ci wax leneen geneen waaye ceebu jën mu nekk fi naan day def poste ah kal kal bi sax mbaxal saalum yooyu yëpp suñuy paar cere waaye moom moom su meloon ni mu war a moom su meloon ni mu war a mel tey sénégalais dañ nekk ceebu jën ñaata sénégalais ñoo lan ñoo ñemee lekk ceebu jën ak ak coof ci digg léegi waa sax la ñuy defee ceebu jën jaay la géej gi yëpp mu naan xam nga lan kër de Sénégal ceebu jën nanga na yooyu yëpp li muy wane mooy président bu matadi loolu tax nag ñu ñu ne woon tappale gi dafa doy ba ñu ko annoncé ba léegi nag ma ngay essayer def ay pexe pour ñu fàtte ko parce que moom xam na li mu def ni mu aaye xam na li mu def ni mu garaawee te man li ma gëm mooy photo yi ki ko génne yéenewul Macky Sall jàmm photo yi mu photo Djibril Ngom ki ko génne yéenewul Macky Sall jàmm ndax xam naa ni neexu ko ku dem dajale na gaa yëpp lu ne mu ramas la ndax li mu def dafa garaaw koo xam ne dafa def njombe Sénégal yëpp ñaawlu ko est-ce que am na Sénégal kenn ku rafetlu lu Djibril Ngom def est-ce que am na du kilifa diine du citoyen lambda du intellectuel du waa diaspora du yéen ñi sax du nag amul kenn ku rafetlu parce que Sénégal dañoo am ay valeur quand même même ñoom waa pouvoir bi ñu bëri dañ koo ñaaw parce que dañoo am ay valeur yu ñu jàngal ñun ngor kóllëre kóolute dafa am nu ñu koy sàmmee donc loolu am ñëpp ñaawlu ko moom mu am sañ-sañu recevoir kooku